بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبه وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين يا محمد يا دنگ ماي فونتو ولا فون لا لا كون غا tok ولا degguloma noo ngi bàyyi ko woon ci rajulu mu'min li aali firawn wax na ak ñoom delloo leen waar leen dem ba àgg ci ni lu leen neex def leen lu ngeen bëgg jéem leen يلا نك تعالى وتبارك نموم موكو آرال بوبام داخ كيب كو نيك تي لي يالا يوخ يا آر سبوب بروم بي نك ني ني اندك فرعون يوم القيام بروم بي داف دي وخني دغولين سقرا yéen compagnon firawna yi yemu ci waaye su ngeen duggee bàmmeel suba gu nekk safara dina ñëw lakk leen ngoon gu nekk safara dina ñëw lakk leen moo tax borom bi ne annaaru safara yuraduuna def na gaaral leen alayha ca moom غدوا وعشيا سونو خي لك نغون ني لك ني لا غنا متي موي بيس بينت من هو يوم بيس بينت دي تقوم الساعه بيس باغا خامني بيس بينت دانا تخاو بروم بي نالين دي دادال نيوم نيب نالين ادخلوا ين سماي ملائكه دوغل لين ال فرعون njaboot ak firawna ashadd al adab mbugal ma gën a metti ndax loola lanu yeyoo kon loolu day wala ni képp ku ànd ak tooñkat te terewoo ko wax moom su mbugal di ñëwit sa kaw la jëm borom bi nee na waa safara bu ñu tàbbee safara dugg fa dañuy xuloo ci seen biir di sante ndax dañuy ànd ak seeni xel comme ni wa aljana di andek seeni xel borom bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa id yatahajjuna fàttalikul xoolal ñom wa safara yatahajjuna ñu ngay sante fi nari ca safara ñu ngay xuloo kenn ku nekk am loo wax di ko jëmale ci sa moroom borom bi na yonent bi ñuy njëkk wax nag mooy ñi néewoon doole ñàkkoon fayda toppoon ndigal yi bon yi te di ko def ne bu ñu fa tàbbee ba commencé xuloo nag bi nu yàlla nettali ne fa yaquulu wax ne ad duafaau way topé ya al topé ya topone njit ya ña topone say say sa ña topone ña di digal caaxaan ñu diko def mune fa yaqulu dana wax ad du'afa al topé ya wala nga ni sax talibé ya danañu wax jëme lillazina waral ña nga xamné istakbaru ñoo fété won kawté reey reeylu moy njit ya kilifa ya mag ya sëriñ sa wàlliyu ya ak ñamel ni ñoom te jaaruñu woon fu neex yàlla nañu defoon seeni taalibe taalibe ñooy wëlbati ko nag ne leen ñun de da ngeen ñoo néewaloon doole naxoon ñu ci xel lan la ñu wax lilladina stakbaru wax nañu ñu nekkoon kilifa yi ne leen inna ñun ñii de ca àdduna kun naa nekkoon nañu tabaan di way topp lakum ñeel leen bi ñu nekkee àdduna da ngeen ñoo présenté woon seeni maam présenté ñu seeni baay wan ñu seeni mbaax wan ñu seeni jaar-jaar gëmloo woon ngeen ñu ne bu ñu ñëwee yowmal qiyaam da ngeen ñuy tàbbal àjjana gëmloo ngeen woon ñu ne dañoo war a jébbal suñuy mbir lépp jox leen ko moo tax ca àdduna ku nekk doon ñëw ci ñun day wax ni jébbalu tuub te nangu ko danañu jébbalu tuub nangu ko lu ngeen ñu digal ñu def lu ngeen ñu tere ñu bàyyi loolee sax àggoon na ci bu ngeen ñu teree li yàlla santaane ñu ñeme koo bàyyi loolee sax àggoon na ci bu ngeen ñu teree li yàlla digle ñu bàyyi ko su ngeen ñu digalee lu yàlla tere ñu def ko ndax gisuñu woon yàlla gisuñu woon ay ndigalam Yen ni lañu topone seeni ndigal topone seeni maam tay nak war ngeen ñu nax ngeen ñu ndax lo won ngeen ñu ni am ngeen yawmal qiyam katan am ngeen fa doole am ngeen fa pexé agon ngeen ci ni ku bëgg nit ku bëgg diw and ak mom aljana agon ngeen ci ni ku jaamu yalla te bëggo diw sax mën nga perte mom dal wax ngeen seeni wax lay seeni lay fen seeni fen ba nax ñu léegi nag ñëw nañu fii bi ñuy wax lii njiit ya ñu ngi ne sëmm noppi kilifa ya ñu ngi ne sëmm noppi sëriñ sa doon naxe ñu ngi ne sëmm noppi léegi nag taalibe yi ne leen weddi gis bokku tey ñu ngi nii ñu nekk yéen fii comme da ngeen a waxoon ni mën ngeen àllaaxira dara léegi nag danoo bëgg a xool ba ñun kat comme dañoo nekkoon ay toppekat inna kunna lakum tabaan dañu leen toppoon ba gisuñu alquran dañu leen toppoon ba gisuñu waxu yonent bi dañu leen toppoon seeni wax rek ngeen ñuy wax lu ngeen ñu wax ñu gëm duñu seet léegi nag fahal moo ndax antum yéen mugnuuna mun ngeen na jëriñ ñun ñi tey mën ngeen ñoo jëriñ dara dara ndax mun ngeen ñoo wàññin mbugal moo tax mbokk bul xaar ba jaan dem nga topp ca watiit wa daw ca ba ngay am tànk gaa yi dañuy naxe de li ngeen di wax nii mbooloo yu bari yii ñi leen topp nii ay nax la même boo amul ay texte yoo ko weddee xoolal ci àdduna bi su fekkee dangaa gëm ni kii li mu wax dëgg la xoolal ci àdduna bi ki ngay wax ñan ñoo ko xam sa waa dëkk rek ñoo ko xam ñaareel bi nga jàpp ne mooy waaja lii mu teg di ko wax nekku fi lu dul nax la oto bu rafet nga jëndal ko saa boo liggéeyee jox ko àddiya soo jógee dem ziyaare pàppaam jox ko àgg nga ci ndof moom su bàkkaaree sax nga mën ni moo ko sañ loolu lépp nag ñu ñëw ne leen fahal antum mugnuuna anna nasiban min annaar ndax mën ngeen ñoo wàññil benn cër ci safara ndax mbugal mi metti na mettit wi metti na kon al toppe ya wax nañ nekk taalibe nag damay wax ni warta tax a ñàkk fayda warta tax ba luñ la wax rek doo ko seetlu ak loo nekk nekk taalibe loo topp topp nit loo gëm-gëm nit am na lool bu la ko waxee war ngaa xam ni mënul nekk nga bañ tey jii ñëw nañu fii ci safara ñu ngi wax gaa yaa ngi ne tekk di leen xool léegi nag fa hal antum mugnuuna anna nasiban min annaar ndax mën ngeen ñoo xettali ba wàññul ñu mbugal mi yowmal qiyaam bu yàllay mbugal sëriñ bu saay-saay moo ki taalibeem la boole dugal safara serigne bu la tee jaamu yàlla yaag moo may and kep ku la gem lolou dul deug yalla duna rek serigne bi mo togn mom la yobbu waye dalay wax ni joxon na la xel majeurun nga xamoon nga li nga bëgg xamoon nga li nga mën lan mo tax nga bayyi lepp ñew fekk ki kon tay yeenay and serigne jinne ya ci bir safara serigne nit ya ca biir safara mooy ña doon naxe di wax lu dul dëgg di wëlbati alquran sànni alquran di wax seeni kàddu yi maam borom bi nag nee na yonent bi léegi altoppe yi moom tontu nañ wax nañ ba pare ñan ñoo war tontu nag sang yi as saada ak i kubaraa suyuux ya war a nag tontu ñoom borom bi nee na qaala daa dinay tontu allazina kilifa ya nga xam ne is takk istakbaru danoo réyréylu woon réyréylu weesuwul nga toog ci sa seize taalibe bi dem uti xaalis indil la jox la nuyu sax mënoo ko koo def nii ngay sànne sa baaraam soo koy ñaan xàqandi tufli ko mu sëgg sa wet torox ñàkk fayda suufeel boppam moom ci boppam moom mi torox moo la tax a tedd yow sëñ bi bu taalibe yi téewoon li ñu am sering ci dem yelwani ndax kenn ci amul métier kenn ci amul li muy liggéey seen liggéey yépp mooy sama mam, di way sama mam, di way sama mam, sama mam ay waja ci lañu ñu nekk di la nax di la nax nga nangu ko mom reyna ba léegi yow bo amé auto bu jek japp nga ni mo ci gëna jek so amé khalis japp nga ni mo ci gëna jek sa kër sax su ñëwé mën na ko nangu nga gi ci yenn façon serigne say say dañuy ñëw sa bir kër boo takkee montre bu rafet ah waaye jox ma ko waaye jox ma ko jox ma ko nga yëkkati jox ko ko parce que amuloo ful la léeg-léeg mën naa àgg ci sax gis sa doom bu rafet ne la ne jox ma ko àddee waaye jox ma ko nga jox ko ko noonu lay def comme yow xel newul ci yow nga jàpp ni nit nga fekk dof bu mag nga léegi nag nga jël say alal mu ëpp la ci sañ-sañ ëpp la ci dogal léeg-léeg mën naa ñëw sa biir kër wala nga ànd ak moom gis ko mu nekk ci lu neexut yàlla te doo ñemee wax borom bi nag nee na ñooña meloon noonu xam nga ni du ñëpp ndax am na ñu baax ñi baax ñi bokkuñ ci waaye ñu bon ñi ca lañ bokk ndax yàlla moo ñu nettali film bi film bi ñu yàlla nettali nag moom la ñu ko mën a gëm borom bi nag nee na qaala daa dinay wax alladina stakbaru ña nekkoon kilifa ya ña nekkoon sëriñ ya ña doon toog ñi wër leen ñi doon lekk xaalisu jàmbur ñi doon wane seenu mbaaxuk maam du nu wax yàlla ne du nu wax yonent bi ne du ñu jàngale li yàlla jàngale mooy alladina stakbaru mooy ñu rëy woon te li gën a doy waar nit bu xasee ba nekk sa sëriñ caatam sax gëm nga ne ku tedd la fan yii yéen a ngi gis benn gone bu ñàkk teggin bu yaradiku ci diine xamul daray islaam mbooloo toog wër ko du la wax aaya alquran ndax xamuko ko du la wax hadis ndax xamuko ko mom est un fils cadet quoi mom boy la doomu serigne la gaay yi topp ko dem na ba ag gaay yi di ci ñaan waye gis nga xeer bi mu sanni ku comprendre lan la wax neena damay baña tontu wa busni jog ñan ngay wa busni moy ahlus sunna yi ñom lay tuddé wa busni légui nak ñooñu il faut ñu jog il faut wa busni jog da lañ la tontu parce que li ngay wax waxul deug fenn la du diiné ñaa laaj la ci ñaan mun a ñaan daa am yoon i faut nga xool sa rëddi baaraam yi yaa ñeme yàlla yaa ñàkk xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xoolal waxi dof lay wax nit ñi di tàccu mu mel ni benn show benn théâtre mais yéen taalibe yi kii toog da di foye xale bu ndaw même pas vingt quatre ans xool leen ko mu takk chaîne sol ñoo col goo xamante ne rapport yi sax du ñu soloo noonu ça veut dire yéen paa yi ngeen toog meer yi toog mu di leen nax ci kàddu yu ñàkk solo yu ñàkk fayda yoo xam ni wallaahi dara du ci dëgg waaye comme yéen jàpp ngeen ni doomu seen sëriñ la rek lu mu wax dëgg la jàpp ngeen ni doomu kilifa la mu leen di faye moo tax sëriñ si noonu la ñu def de dañuy jël seen benn booy formé ko rek mu ñëw nekk sang seen kaw ngeen dof doflu mu tiim leen xale bu ndaw te lii mu leen wax seen doom bu ko waxoon ngeen weddi ko bu ko keneen waxoon ngeen weddi ko voilà loolu mooy ñàkk faydak taalibe yi léegi nag borom bi nee na qaala alladina stakbaru ñu rëy rëy lu woon nekkoon kilifa ya amuñu tontu lii ñu leen waxal yépp ñoo ko def taalibe yaa ngi koy wax ci biir safara ñu koy dégg comme ñoo ko def mënuñoo weddi borom bi nee na lan la ñu wax ñoom sëriñ si ak kilifa ya bi ñu àndee dugg saf dañee inna kullun fiha bu leen ñu fontoo ñun ñépp safara lañ nekk nañ mën suñu mënoon a wàññi duñu dugg allahu akbar inna kullun fiha ñun daal ñun ñépp tàbbi nañ safara dañu leen a fenoon ngeen dofoon toppoon ñu toppoon suñuy ndigal bàyyi ndigalu yàlla ak yonentam kon inna kullun fiha ñun ñépp ñu ngi jahannam waliyaadu billah léegi daal inna allaha naka yàlla qad hakama ca dëgg-dëgg àtte na baynal ibaad yi diggante jaam ñi yàlla daal àtte na jaam ñi ku nekk la nga yelloo jox na la ko yéen li ngeen yelloo jox na leen ko ndax da ngeen a dofoon ci àdduna ñu nax leen ñu nit li ñu yelloo jox nañu ko bi mu ko defee nag ndeysaan ndeysaan yéefar ya nga xam ne ñoom amuñu woon sax ñoom ay ay ay ay sëriñ ak yooyu amuñu woon ay ay ay sànq ñoom dañoo weddi woon pour weddi rek borom bi nee na to al toppe yi dañoo wax njiit yi tontu nee na ginnaaw ga nag ñeneen ña nekk ci safara mooy al toppe yaag kilifa yaag njiit ya lakk bi metti na borom bi ne waqaala daa dinay wax alladina gaa ñi nga xam ne fi ñu nga ci safara yéefar ya lan la ñuy wax dañoo wax ak li xasanati jahannam ñeel way yore ndam bi jahannam te mooy pénitence u malaaka ya yore jahannam di wëlbati malaaka yi gàdd jahannam léegi waa jahannam yépp wax nañ li xasanati jahannama ne leen ay waay yéen malaaka yi lakk bi metti na sonn nañ tee ngeen ñaanal ñu intervention ud'u rabbakum yéen malaaka yi waay waay ñaan leen seen borom سنين كنياني يخفف عنا برام بداد ني ويفلل يوما دونت بني بسم العذاب وخو ني سخ ني ген مي دانيو بوغ نين نيانن يالا انترفنسيون مو ماي بني نوبل الله اكبر لا اله الا الله ndaw metit ñaanatu ñu genn ndax xam nañ ni duñu genn waaye lan la ñuy 24 heures ñu noppalu ko wala 12 heures ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب مو مسول ني رك واغنيل ني بن بيس تي مبوغل مي قالوا ملائكه نيوم دا نيوم فول دي لين تونتو نلين او لم تكو تاتيكم خنا ديكلول لين وون رسلكم سين يونت بالبينات لاي ويخ نونا أولم تأتيكم سيوخكم ديدت أولم تأتيكم رسلكم خنا سيني يوننتي نيونا والله محمد نيونا وخنا يوننتي يب نيونا وخنا قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم خنا سيني يوننتي نيونا ون اندلين بالبينات سي أي لأي وقتال اندي القرآن اندي تورات اندي انجيل اندي indi zabuur indi furqaan xaalu waa safara dañuy tontu ndax fen jeex na fen àdduna la yem ñu ne balaa aha kay wallaay wax nga dëgg yonent yi ñëw nañ de wax nañ ñun ñoo dëgëroon bopp rek topp suñu bakkan topp suñuy caaxaan xaalu ñu ne kon fadu yéen ñaanal leen seen bopp malaaka yi ñu waaye ñaan leen comme yéen a mooyoon yàlla ba dugg safara ñun duñu leen ñaanal ñun duñu def intervention ci kanamu yàlla ñemewuñ ko xataa yonent ñemewul def intervention qaalu fadu ñu ne leen ñaanal leen seen bopp te xam ngeen ni wa ma duaaul kaafiriin déet di nekk ñaanu yéefar illa fi dalaal lu dul perte yéefar moom ñaanam du jëriñ ndax gëmut yàlla ku weddi su ñaanee yàlla du nangu yàlla bàyyi loolu nag ñëw di wax nag ne naa ñun yàlla day la nansur danañu dimbale su nuy yonent ba ñu gañ moo tax yonent bu yàlla yónni yaa gañe sa komba ku yàlla yónni yaa wax la nga waroon a wax inna la nansur rusulana sunuy yonent ak suñuy waxkat ñun ñoo leen aar jox leen dimbal walladina amanu ña gëm yàlla yàlla nee na moo leen aar jox leen dimbal fil xayaati dunia ci àdduna gi kon ñoom danañu gañe fii ci àdduna danañu gale alaaxira wala aaqibatu lit taqwa mujj na ak ragal yàlla kon yàlla ngay fayu nee na wa yawma bis pénc yaquumu dana taxaw al ashhaadu seede ya kenn ku nekk am na ñeenti seede yoo xam ni defaral bunt bi dana ñëw nekk sa seede ngir say jëf wa yawma yaqumul ashhad ñeenti seede dana ma seede dana la seede dana seede ku ne ñu ne waaw ñeenti seede yooyu ban ak ban la mu ne malaaka yi danañu seede ni yàlla yónnee woon na danañu seede ni risaala bi ñëwoon na kon première seede bi seede malaaka yi la ñaareel bi mooy seede yonant yi ñoom it danañu seede ñetteel bi jullit ñi danañu seede ñeenteel bi seen yaram dana leen seede kon ñeenti seede la malaaka dana seede yonant seede sa mbokk jullit ñi seede sa yaram seede borom bi nee na keroog bis yow ma keroog laa yanfau du jëriñ alzaalimiina way tooñee te mooy bokkaalekat yi du leen jëriñ mukk-mukk maasiratahum seen ak ngànt mënu leen a jëriñ amul na am naa ngànt ndax dégguma woon amul yonente bi gisuma ko woon amul waaluñ ma woon wa yow yowma laa yanfau zaalimiina maasiratahum léegi nag ngànt amul nee na walahum ñeen na leen allaanat rëbb ga ak dàq ga ak toroxal ga ak sore ga yàlla nee na loola seen kaw la jëm te walahum ñeen na leen suu ut daar kër gu bon nga te mooy safara yàlla nañu yàlla musal ci kër gu bon mu bàyyi loolu nag ñëw ci Muusa ba tey borom bi ne walaqad aatayna ca dëgg-dëgg joxoon nañu muusaa yàlla ne joxoon na Muusa lan la ko joxoon alhuda njub ma te mooy tawraat yàlla jox na Muusaa tawraat jox na ko mujizaat ya ne wa awras naa borom bi nag nee na Muusaa gañe na kon donnuloo nañu bani israila waa israil alkitaaba téere ba yàlla nee na moo leen donnuloo téere boobu nga xamante ne mooy tawraat ñi ko ca jàng mokkal ko ngir jéem koo jëfee bu ñu jëfee xayrun bu ñu jëfewut ñoo xam mi ngi mel ni ñun alquran la ñu yàlla jox suñu ko jëfee sant yàlla suñu ko jëfewul pertement rek moo cay topp moo tax wa awras naa doonnuloo nañ bani israil alkitaaba téere booba di tawraat téere booba nag hudan njub la bu bàyyi koo ci yàlla wa zikra am waar la boo xam ni li ulil albaab ñeel borom xel yi kon tawrat téereb war la téereb fatali la buy ñëw di wax ak borom xel yi alquran téereb war la téereb fatali la buy ñëw di wax ak borom xel yi kon nak mbir ma ngok yow muhammad sallallahu alayka wa sallam ak luñu la munti def luñu la munti wax luñu la munti tumal fasbir muñal ya muhammad yonent bi ne ko naam mu ne ko fasbir muñal àdduna li fi nekk yàggul ndax xam nga ne inna wa'da allah naka déxalab yàlla day xàqun dëgg la kenn du ci sikk li leen yàlla digal dana am dana ñëw arab nee na wa kullu ma huwa aatin fi zamani qarib lépp luñ la ni dina ñëw rek jege na agsi na xam ngeen ni fan yi yàggul dañ doon wax ni kañ la ñuy séenti koor tey ñu ngi naan semaine bu jeexee ñu ne ginnaaw suba la julli kon mi ngi noonu wa maa huwa aatin fi zamani qarib kullu maa huwa aatin aat luñ la ne dana ñëw jàppal ni ñëw dañuy toog fii rek benn semaine comme xam ngeen ni suba jeudi incha allah mooy ñaar fukkeelu fan guddeem lañuy ñuy commencé qiyaamu layl mu nekk guddik ñaar fukk ak benn kon xam nga ni bu ñu nee alxamis alxamis dellusiwaat am nañu juróom-ñetti fan kon bu ñu amee juróom-ñetti fan lan moo cee tegee ajjuma samedi ñu commencé wax nañu séentu weer bu ñu séentoo weer gis wori suñu gisul matal euh, li ñuy wax euh, saabaan xaw ma weeru koor kon muy fanweer ñu matal ko kon loolu mooy àdduna bis yi day gaaw waxtu yi day gaaw minit yi day gaaw kon dixalëb yàlla day dëgg la kon yow muhammad muñal biir muñal inna waadallah naka digalëb yàlla ba mu digle woon ne dana dimbale dana ñëw yàlla nee na dana dimbale yonent bi yéefar yi sonal yonent bi yëf yi metti lool ba yonent bi bëgg saalit ba naan mata nasrullah yàlla ñëw ba fii dokkoo tont ne ko muhammad fasbir muñal kon yow miy woote muñal yow mi bëgg a jubal muñal yow mii defar nit muñal mbaa xam nga ni kenn ku nekk ci ñun yow yaay yonentab sa xeet xeet ba nga bokk famille ba nga bokk danga leen a war a waar wax leen li yàlla wax bu ca wut lenn lu dul yàlla moo wax wax nga mu def nag léegi la la war mooy jottali bul ñàkk fulla ba caaxaankat yi ci sa famille domine la soo toogee sa biir famille moo xam tuuru famille la eh moo xam tuuru famille la moo xam ngénte la moo xam xew la occasion am na gaa yi nekk fële bëgg a rëkk musique yi ñee bëgg caaxaan ñoom am lañu fayda yow nag lan nga représenté yow yow mi représenter sa borom représenter sa diine nga bëgg toroxal sa bopp suufe di xalaat naan suma waxé dañuy dal sama kaw wala suma waxé ñu ne nàngam nàngam ñom ñi na ci caay-caay ñeme nañ taxawal ngeen leen déet du ni de bu leen def ni da ngay jema melni yonent yàlla Shuayb yonent yàlla Shuayb da lan wax ñu diko xass da dama aw ful kayla wal mizan wala tabxasu naasa asiyaahum matal leen natt mi matal leen màndaxe mi matal leen blanche yi bu leen nax nit ñi def leen li yàlla wax léegi nag day wax di wax ba nit ñi bañ bi ñu demee ba nattu yàlla ñëw lu mu leen di wax di leen di wax ni yoon day waar naa leen walakin laa tuhibbuuna naasihin buggu leen ko ku nekk ci ñun booy waaraat ci sa famille nit ñi duñ ci ànd waaye comme yàlla ngay defal continuel kii jub yoroo ko bul wax yàlla nee na kenn yuuxu rek nga ragal taxaw ne dootoo dem kenn mën naa yuuxu rek nga tiit <laughs> man dama waxkat gaa yi ne ma nangam xaaral ma noppi day déedéet iblis sa koy def soo commencé di waar say mbokk di waa ak ñoom iblis day seet ki gën a dëgër bopp dugg ko yow dëmbala ñu waaw yow foo jóge xam nangam bul jàpp ni kiy wax moom la iblis ay wax ci moom taxawal jaamaarloog moom ne ko li may wax danaa ko wax mu leer nañ nañu la yuuxu nañu mer loolu du ngeen ko seetlu xam nga tax mooy danga nga véhiculer ba pare sa jëmm léegi mooy wax ak nit ñi sa présence mooy daawa nit ñi feeg yaa ngi toog kenn du taal dara boo jógee nag mën nañ bàyyi ba nga dem ñu ne ah def mooy léegi sa jëmm dañu koy ragal et pourtant kenn nit nga amoo doole ëppoo leen doole mais yàlla moo la jox courage courage boobu mu la jox mooy kenn dootul ñeme di def caaxaan sa wet koo ci jàkkaarlool bu doon tux soo ko bettee day làq cigarette bi wala mu sànni ko parce que xam na ni baaxul kon noonu ngay def pour nga ag fofu nak fit mo la koy may ak fulla ak xam ne lii mooy waxu yàlla la tubayyinunahu linnaasi wala taktumuna waye ñu wax la ben kàddu toroxal la nga ne tot ragal kon yow pare wo pour jotali kàddu yàlla kon fasbir yàlla wax ko yonent bi waaw ne ko nak inna waadallaahi haqq legi nak digelab yàlla deug la legi wastaghfir sakul jeglu mënoo baxa bax ba am garantie ne yàlla bal na la fo tol dir jeglu kon wastaghfir jeglul li zambika say bakar legi nak kenn ku nek ci ñun mu ngoog de mission baa ngi sa de nan nga mel soy dëkk noy def seen dëkk déet bul xaar ñu waajal la nga ñëw de déedéet bul toog ba ñu dajale nit ñi toog teg kii nga ñëw toog yàlla ne yonent bi nee na nangam déedéet da ngay dugg ci biir nit ñi wanzir asirataka al aqrabin soo fa demee vacance wala fête koo dugg ci néegam waxal ak moom waxal da nga war a wax bul toog xaar ñu am benn xew woo la nga waaraate nga ne maa ngi daawa seen dëkk daawawoo kenn ndax nit ñi ñoo la préparé yow yaa war a fekk nit ñi di wax ak ñoom paa yi yi mag ñi lu ñu mënti wax tontoom mi ngi sa kanam nga tontu leen wax ak ñoom bu yàggee dana dem ba nga xam ni yow yaa fay représenté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko yàlla may ci suñuy askan yombul yàlla nañ ko yàlla may ci suñuy famille yombul soo ragalee doo ko def mukk-mukk moo tax mu ne wastagfir sàkkul jéggalu li zambik gis nga boo dee jéggalu yàlla di tuub di woote yow jottali woo yàlla jottali ndax yow sa digganteeg sa borom pour nga nekk daa yi il faut nga defar ko nag sa digganteeg sa borom xoolal sa bopp ci say jikko xool ko bu baax safaasiful axlaaq moytu ko de moytul jikko yu sew soo amee jikko yu sew ba ñu xam ko moom lañ lay jam boo waaraate su fekkee da nga leen a tàmm wax lu dul dëgg wala nga tàmm koo def wala nga def benn njombe bis boo commencé yàlla ne ba nit ñi sonn kenn day jóg na waaye boo ko démb du maa la nga taxaw ak diw fii kon ku nekk day ut fu mu jaar pour taqal la moytul moytul ci say moroom say àndandoo say dëkkandoo moytul jikko bu ñu lay xase nit ñi bu ñu amee jikko bu ñu la xasee boo nee yàlla nee na ñu ne la ñoo koy wayam ñoo koy wayam loolu lañ lay wax moytul ñu am sa vidéo de gis sa vidéo boo xam ne gaayen yaa ngi nekkoon ci lu dul noonu da wax ñaari baat kenn lay eh, xoolal bu ñu fontoo nga wax mu puut la ko <laughs> xamal naa la de <laughs> oustaz waaw xal naa la nga kii mu lancé la benn vidéo ne la cell mbaa ma génn ko looy def léegi boo ñëwee bu ñëwee yàlla ne nga <laughs> non non damaa jàpp fekk jàppoo dara dañ laa jàpp waaw ñu jàpp mën te leeral kenn moo tax il faut nga defaru yow ci sa bopp ba pare nit nag matul mën nga juum mën nga lépp waaye góorgóorlu ci loo mën kon wa sabbih borom bi ne ko sabbaalal bi hamdi rabbika di sant sa borom bil asiyi ca ngoon ya wal ibkar ak suba ya. sàbbaalal sa boroom ca suba yaag ngoon ya mu ne inna allazina naka gaa ñi nga xam ne nag ñoom yu jaadiluuna dañu dàggante fii ayatillah ci aaya yàlla yi di indi lay bi xeyri sultaanin ci lu dul benn lay ataawam bopp dikkal na leen borom bi nee na ñooña mel noonu boo nee yàlla nee na ñu ne sëñ bi ne nga ni yàlla nee ñu ne daa bañ sëñ bi nga ni yonent bi nee ñu ne daa bañ mag ñi yàlla nee na in fii sudurihim nekkul ci seen dënn illa kibrun lu jug rëy bañ dëgg rek moo fi nekk moo tax ku baax bu la nattu dalee ñu jël loolu jàpp ni dangaa bañ diw moo tax lii dal la fan yi ndeysaan dafa am benn waay boo xamante ni dañu ko téye ci kaso bi dangay gis ñenn nit ñi bu ñuy wax pour ñoom jàpp nañ ni natt bi ko dal mooy seen sëriñ a tax quoi seen sëriñ a wàcc tax ñu tëj ko kaso mais Sénégal dañuy fo dañuy fo gis nga nattu nattu la mais dafa ban serigne diw mo day fo mu dem kaso dafa nangam dafa nangam te ñi wax lolu dañu dof fi ñu bax ñu ci bari dem nañu kaso kon yow bi te serigne di dem kaso bi ñu koy yob mom lan la defon kan la bañan bañu yob ko kaso kon aduna dafa am lo xamante kenn du ko àttee nit gis nga lu bol kenn du ko yéene nit natto kenn du ko yéene nit yalla moy àtte taala wa tabarak borom bi neena mbon mo nek ci seen xol ya te wallahi ñi àndul ak yow ci pas-pas ñu amee paaka jam la su ñu amee poson jox la suñu amee musiba xëpp ko sa kaw ndax mbon gi nekk ci ñoom munuñ la digérer munuñ laa bëgg in fi sudurihim borom bi nee na nekkut lu dul ci seen xol ya dara dara dara nekku ca mukk mukk illa kibrun ndara rëy bañ a topp dëgg bëri caaxaan bon jikko borom bi nee na maahum déet ñoom bi baalixiihi di aji attan seeni itte ngir dugal la ko ngir lool la kon nag yow Muhammad fastaiz sàkkul muslu billaay ci yàlla ndax inna innahu naka yàlla huwa moom assamia mooy aji dégg waxi caaxaankat yi te mi ngi koy denc bis dana ko àtte albasir mooy aji gis la ñuy def te bis dana ñëw mu wan leen ko kon nag kenn ci ñun tewut yàlla yàlla nañu wax yonente bi ne ko la xalqu samawaat ne ko mbindam asamaan yii wal ard ak suuf sii akbar moo gën a rëy min xalqi naas ci mbindam nit ñi yàlla nee na mbind asamaan moo ëpp bind nit ñi asamaan a ëpp doole ki mën a bind asamaan moom ko mën caa def lu ko neex yow nit bu ne dalee moom war ngaa mën a nangu kon kay la xalqu samawaati wal ard akbaru min xalqi naas moo gën a rëy ci mbindam nit ñi walakin waaye nag aksara naas lépp ci nit ñi laa yaalamuun xamuñu du ñu settantal borom bi ne kaay ma wax la wa maa yastawi du yem mukk al ama silmaxa ak al basir ak aji gis kuy gis ak ku gisul du ñu yem kon jullit mënta yem ak yéefër jullit mënta yem ak yéefër ab jullit warta yëkkati yéefër ci kaw jullit jullit jullit daa war a rëy ci sa kanam waaye toroxal jullit ñi borom bi nee na walladina amanu gaa nga xam ne gëm nañu nag wa amilu saalihaat te ñuy jëfee farata ak naafile yow ya di jëf lu baax di def la leen yàlla sant ñooñu day mënuñoo yem ak mukk mukk walal musii kuy def lu bon ñay def lu bon mënuñoo tolloog ñiy def lu baax ñiy def lu baax gën ba faw waaye borom dina na fàttaliku gu néew ma tatadakkaruun ngeen di fàttaliku di ci muhammad mu ne ko naam mu ne ko inna saa bis penc day la aatiyatun aji dikk la laa rayba fiiha amul benn sikk bis penc day ñëw de bu leen sikk mukk dana ñëw mu ne walaa kenn waaye na ak saran naas lépp ci nit ñi ñoom laa yuminuun du ñu gëm borom bi ne wa wax na rabbukum seen borom ne ud'uuni ñaan leen ma astajib ma may leen man nag mosumaa xam ne ndeke ak ñaan guy nangu ci loxo lay yem rëdd baaraam yi baa rëdd baaraam nuun kii moo ñeme yàlla dëgg-dëgg nee na boo xoolee xoolee rëdd baaraam yi nii boo ko xoolee baa la man bante xool naa ba sonn gisuma baa nee na dof yoo xamante ni nee na mi ngi ci diggante baa ak nuun man xale bu fottegul yow waxoo kenn xam-xam naa ah, rëdd baaraam yi baa la damaa xool ma ne man kii dina ma dof loo de xool naa baa baa ba ma kii kii dafa dof noonu loolu fan la waxi waxi booy yoo xamante ni jamaïcain yi sax waxee wuñ noonu mais nit ñi dañ leen di dofloo sëriñ si dañu jël seen doom yi teg leen ñoo xamante ni duñu xam dara ñu jiitu nag ñëpp di leen tàccu non subhaanallah wa qaala rabbukum borom bi seen nee na ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen nangu ñaan ci ñett yi rek la aju rek amul beneen soo xamut li tax a nangu ñaan mooy lekk lu lew naan lu lew sol lu lew loolu dong la ki yàlla yónni moo ko wax wa zakara rajula yutilu safar as asa axbar yamudd yadayhi ila sama yaqulu ya rab ya rab anna yustajaabu la wa matamu haram wa malbasu xaraam wa gudiya bi xaraam anna yustajaabu yonent bi nee na boo bëggee sa ñaan nangu lekkal lu lew boo bëggee sa ñaan nangu naanal lu lew soo bëggee sa ñaan nangu solal lu lew nga julli ci yonent bi ginnaaw boo jéggaloo yàlla tàllal loxo ñaan mu def yàlla ay nangu nangu gi yàlla nag du force waaye nga def sa baaraam ni xool baa ma baax lu ci nekk waaw walla xool nuun nuun lu ci nekk waxi dof yoo xamante ni bii ni booy jardin d'enfants yi sax rus nañ koo wax boy jardin d'enfants yi bo demone ci boy yi nga xamanteni ñom ñoo nek le cadre des tout petits xale yooyu sax wax joju rus nañ ko wax mais ñak respecté nit ñi tok solo melni ab rapport melni ni Jimmy Cliff toog nag foog ni nit ñi non nit ñi dañ ñak fayda da nga xol sa xol bi day metti sax day metti borom bi leena innal ladhina alladina naka gaa nga xamni yastakbiruna yastakbiruuna danañu reey reey lu ani balati wuris di ma ñaan yàlla neena ñima baña ñaan dañu reey ñooñu sayadxuluuna danañu dugg jahannama jahannama daaxirin di way torox kon nag ñaan jaamu yàlla la soo bëggee sa ñaan nangu del jaamu yàlla te ngay ñaan def istighfar julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñaan sa borom nga jéem a xool istighfar borom bi nag ne wa qaala wax na rabbukum seen borom ne uduuni ñaan leen ma astajib lakum ma nangul inna alladina naka ña nga xam ne de ñoom yastakbiruuna danañ rëy rëylu an ibadati wulis di ma ñaan di ma jaamu ñooñee sa yadxuluuna danañ dugg jahannama daaxirin di way torox allahu yàlla alladi mooy borom ba nga xam ne jaala defal na leen lakum ñeel leen allay la guddi gi li taskunu fii ngir ngeen dal yàlla nee na damaa def guddi ngir ngeen dal tëdd noppalu noflaay am mune wan na nahaara bëccëg bi ma def ko mubsiran ngir gisu way kon bëccëg nekkul pour nelaw bëccëg pour sàkk wërsëg la pour ut lu lew kon mooy wan na nahaara mubsira inna allaha naka yàlla day lazu fadlin borom ak ngëneel la ala naas ci nit ñi wala walakin waaye nag aksara naas lépp ci nit ñi laa yashkurun duñu sant yàlla te la mu leen defal zalikum loole seen allahu yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli shay mooy aji bind bépp mbir laa ilaha illa amul benn borom bu dul moom yàlla bu ñu jaamu kenn ku dul yàlla bu ñu topp kenn ku dul yàlla bu ñu yaakaar kenn ku dul yàlla kon fa annaa tufakoon ana fan la defi fi soppi leen ngeen dellu fa jëm fa kadalika borom bi nee na naka noonee yufaku la dee di wëlbatee alladina ñi nga xam ni kaanoo nekkoon nañ bi aayaatinaa ci suñu aay bi aayatillaahi ci aay yàlla yi yajhaduun di weddi ko allaahu yàlla de moom allazi mooy borom ba nga xam ne jaala lakum defal na leen al arda suuf si qaraaran muy aji sax yàlla leen ko defal amul benn problème mu ne was samaa yàlla moom moo def asamaan si binaan mu dib téeg mu nekk benn tabax bu ñu tabax mu nekk sa wet wa samaa binaan wa sawwarakum borom bi nee na moom moo leen melal fa ahsana mu rafetal suwarakum seeni melokaan yàllaa leen melal rafetal seeni melokaan waaye wa razaqakum yàlla moomee moo leen xéewalal jox leen xéewal ñii am ñii ñàkk ñii néew doole ñii wér ñii wéradi ñi am katan ñi ñak katan moo tax mu ne wa sawwarakum borom bob mo len melal fa mo la rafetal suwarakum seeni melokan wa razaqakum borom bobé mo len wursagal min at tayyibat ci way tay yi lek yi nan yi col yi ak sëy yi zalikum loole sen allah yàlla rabbukum moy sen borom tabaarakallah fa tabaarakallah barkel na moom yàlla rabbul alamin borom bindeef yi mbokk maa ngi lay tontu ci sa laaj bii soxna si dafa laaj benn laaj sonn ci lool nag mat semaine waaye maa ngi lay jéggalu ci ñàkk gis message bi programme yee bëri moo tax pour may ubbi téléphone di xool yenn message sax day xaw a jafe ci man nee borom këram bëccëg bi day bëgg di séq ak moom fo su ko nee lii dagalul mu ne ko noonoo sëy la wax léegi daa bëgg ñu wax ci ndax jëkkëram dina may déglu mu ne ko bu dee lii de seen jëkkër a koy def caacaay mi nga koy bëgg a dugg man dama xamul fo ak sëy luy seen différence fo mooy caabi biy jëme ci sëy bëccëg bi nga ni mun ngaa foog sa jabar déedéet dañ la koo tere loolu dafa xaraam ndax lépp lu jëme ci lu bon lu bon la waaw lépp loo xamante ne kullu ma jarra ila manfaat lépp lu jëm ji bijj jëm ci lu baax lu baax la lu bijj jëm ci lu bon lu bon la kon yow soxna si am nga droit bañ su bëggee tëdd sa wet ne day tëdd di foog yow bañal ndax jaamu yàlla gi yàlla dala koo sant yàlla joxu la pouvoir nga nangul ko ndax sa jëkkër la na tuub dellu ginnaaw dafa juum loolu baaxul bu mu ko indil benn lay loolu amut lay loolu amut lay nañu moytu bu baax a baax yenn déggin yi dégg nga nañu ko moytu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na jàpp génn foon soxnaam lan dañ ca teg dañ leen wa am lakakum li ir bi yonent bi moo leen gën a moom boppam ci yéen yonent bi du yow yow doo yonent bi bul jël sag caay-caay bugg ko cee làq waa nga ne man mën naa foog sama jabar te du ma sëy loolu caay-caay la jullit da koy moytu moo tax mu ne zalikum koo allahu yàlla rabbukum mooy seen borom fa tabaarakallaahu barkeel na moom yàlla rabbul aalamin borom bi ndefi huwa moom yàlla alxay mooy aji dund dund gu sax laa ilaha illa hu amul benn borom bu dul yàlla fad'uuhu ñaan leen ko muxlisiina di way sellal lahu ñeel ko addiina topp gi alhamdulillah cant day sax na ñeel yàlla rabbil aalamin kay borom bi ndefi incha allah suba ak jàmm ñu àggale lii te tëj ba koor bi jeex ak jàmm incha allah ndax suba la ñuy commencé qiyaamu layl suñu commencé qiyaamu layl yi dañu nekkaat ci yeneen dars muy madrasatu ramadan ak bateau sauvetage yooyu dañu koy def kon bu qiyaamu layl tàmbalee tafsir bëccëg bi dootul am ndax ki fanaana naafile fanaana jaamu yàlla bëccëg moom toog di déglu tafsir dafay xaw a jafe kon suba incha allah la ñuy tëj وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منهج السلف ودعوة إليه ويتقو يون مغني باحني بسلف الصالح أكووت سيسين يون سلف الصالح تعال القرآن السنة تقول كوسوف كان نكره فمن نكره نكره سلداء سبحانه وتعالى من القرآن ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ijma'u sahaba te wote jëme ci keur aduna fi xejul ci keur abadan wote jëme ci sant am nañu amul sant wote jëme ci rew munul giide ñep wote jëme ci qabila mana aw xet amna ñeneen ñu xamul na sax xet bobu amna kon yoyu yep